ci suuf la ñuy defanteeg yéen. bii lañ leen di. mais mais mais Malick nag war na jékki-jékki ne Kali am nga Wave ma ne ko am na Wave wala am naa porté mu ne la daaj sa Wave dara lu mu dee dee dix personne sax ku si nekk benn vingt mille deux cent mille la loolu tamit ñii di seetaan même bu dee dix personnes. pour public bi. pour public bi. waa dix mille sa dix mille bu dee vingt mille. sa bu ne bu ne dix mille vingt personnes deux cent mille. muy quarante personnes xaar xaar xaar Malick mënul jox Amina ay millions. yow mu dóor la ay cinq mille dollars ñii di seetaan bés fu ne nekk fii du ñu du ñu mais nag kii nu mu tuddati ñamu bët. te alal sa foog nga wuyu ma sax e teraanga gi sa su génnee maa koy séddale parce que Amina suma suma doom la moom Pape Baye si jur Malick ma jur Amina teraanga gi su ñëwee sama loxo man maay faral fàtte li ma neex teraanga parce que Amina suma doom ñun rek toog fii ñun rek mënuñu toog fii ne Malick Mar euh, Malick Naar baax na te sénégalais gisuñu mbaa xam na léegi deux cent mille deux cent mille bëri na bëriwul kon kon mille vingt mille na dara dëkk bi daa taxaw. Amzo Amzo kon sa loxo lañ koy teg. ah yéen a xam ne na man man ma man maa ngi seen ginnaaw waaye dama bëgg tey moom su génnee na teraanga yëpp génn parce que alalu àdduna. en direct lañ nga lu ne teraanga yëpp toog mu fu ne nii fu ne nii parce que sénégalais yi tamit ñu ngi sopp boo demee ci YouTube ba. fu ñu gis vidéo Malick Naar ak Amina Poté dañuy commentaire ne Malick Naar jërëjëf kontaan nañu si yow Amina Poté yàlla na nga gudd fan man maa si teg sama bët ak si TikTok bi ñoom it foog ñu ñamal leen même bu dul ñëpp bu ko defee ñii ñu jox vingt personnes yi day mel ni jox nañu dix huit millions sénégalais yëpp. Malick Naar nee na. waaw. Malick Naar nee na. waaw. Malick Naar nee na. ñu ngi déglu lu Malick Naar wax. Malick Naar nee na. ñu ngi déglu lu Malick Naar wax. Malick Naar nee na. ay waay Malick Naar lu mu wax. sama doom ju góor ji nee na. naam. moom taaw bi nee na. moom Malick Naar lu mu wax. li nga laaj dafa ndaw. ah. deux cent mille. nga ko waaw. dina la tëmbale léegi cinq cent mille. Ah. waa kon léegi Kali toogal rek Kali jaru effort. Kali nee ràcc toog. Kali toog <laughs> tooroo mënuma toog samay followers yeeg Sénégalais dama bëgg ñu. sama rakk ma eh! toogal sama rakk toogal. message ak Malick Naar léegi numéro wéef beeg tur bi. ah. léegi Kali. Malick Naar dama yónnee léegi wéef bi cinq cent mille. fii nga toog laa la wax dama ne la. Eh, duma commune bëri. Ah. man foofu nga toog. waaw. ko ca ko ca ko ca ko ko ca waaw mu nekk numéro wéy bi fi mu toog da koy def ki Kaama Linguère la. waaw xaaral aywa wuy ma. Pambaay Pambaay. nga woo Sénégalais nga woo Sénégalais ñu may leen ko. fii kay dañ koy defee en direct balaa ngeen di yebbi balaa oori di ñëw. ku daa ko Pambaay Pambaay dama bëgg a seedal lu ndaw. vingt mille tuutiwul Pambaay. dix personnes vingt mille deux cent mille la. Pambaay quarante personnes muy quatre cent mille. maanaam cinquante personnes bu ma juumul wala wala nan. may ma tuuti kali kali. naam. bàyyil ba xaalis bi dugg pare after ñun ñun ñu gérer ko. ñu non xaalis bi dina dugg. mais sama wéef xaara tuuti xaara xaara. may ma tuuti bi bind ko nga jox ko sa wéef ci suuf jox joxe sa wéef bi ci kaw ñu lay pirate. déedéet pirate jàmm. yow Pambaay. Pambaay. Eh, kii nu mu tuddati. Pambaay sa sa micro bi dafa dem. waaw xaar xaar ma woo ko. may ma ma woo ko jox ko sama numéro may ma kii di woote ci numéro Amina Poté bi Amina Poté nee na dañuy live soo woote waatee jox na ma ndigal pour ma couper la bloqué la bu ci woote parce téléphone bi la ñuy waxee waaw waaw léegi yow may ma tuuti mbaaya dafa am dafa am seede bu may jàllale léegi parce que man du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu te gisuma yàlla. waaw xaaral ma woo Malick jox ko sama numéro wave ak sama tur. bi léegi. Pape Mbaye dama toog sànq am ay nit yu am ay nit yu ma parce que man ku ma xam-xam ne man international dëkk bu ne laa daan dugg di dugalante man baana baana kat laa te Amina xam ne ne man dama sopp dugalante kat laa. dama toog léegi am am ñaari nit yu ma woox ñu ne ma am zoo dañ la gis barki dee ma ngay dugg ci laay fu kalifon bi di wax man la diw ak diw ak diw ma ne leen diw yéen gëj naa leen gis ci loo nekk. ñu ne ma ñu ne ma ñoom fi ma leen yéen de samay nitu démb ngeen ñu ne ma waa ñu ne ma de dafa am luñ bëgg a seede ci internet bi te bëgguñ koo jàllale dañ la koy seedeel nga wax ko te soo duggee ci laas bi nga jàllaleel ñu ko te yóbbante àq la kooku xamal ma ne ma Malick Naar taax bi mu tabaxal ndeyam fii ci Bango mu ne ma ku romb taax bi di nga gëstu ñaari yoon ñaanal xale bi. Mm-hmm. mu ne ma taax bi mu tabaxal ndeyam man ki ma la wax mag la dem mag ba ma ko gëjee dégg mën na ñaar fukk at ay doomam laa doon àndal mu lijjanti ba am sama numéro woo ma téléphone jàmm santeeg man ma jàmm santeeg moom mu xamal ma ne ma dama la dégg ngay wax ci coow Malick Naar bi mu ne ma waaye Malick Naar dafa am ngërëmul waajur mu ne ma taax bi mu tabax fii ci Bango mu ne ma ku jur doom bëgg nga am taax boobu. ma ne ko xaa mu ne ma waa mu ne ma tabax na fu tabax na kër ndeyam waay moo ngi tabax leneen ak leneen ak leneen mu ne ma doomu jàmbur kenn du ko catu mu ne ma waaye ndar gii ñu dëkk nii koñ bii ñu bokk moom jéppiwuñ ko te ay mbokkam fii suñu ci ñun ma ne ko xaa mu ne waa mu ne ma ne te dama bëgg soo demee ci live bi na ma ko jàllaleel te yóbbante àq la waaw mhm. ki ma ko wax mag la kilifa la Mm. ndar la dëkk. ndeysaan adduna waaw kon nga war a xam ne. taal bu yàlla taal sànni ci matt moo gën fay ko. adduna bi yëpp a ngi koy waxtaane. Malick nag dama fier ci moom parce que. même man su ma defalul dara sa téena sama doom ji dafa. ni mu ko yoree rek ma neex. Amzo Amzo da ngaa teel a wax dangay xaar ba ñu jox la sa teraanga nga téye ko ci sa loxo sa teraanga doom nga soog a dante xanaa neex. waaw maa ngi déglu. dama tey dama xëy naaru darmaan ko bi yàgg gën yàgg mën mu ma ne ko mu ne ma fo foo ne ma ne ko maa ngi nii hôtel bi nga ma jëlal hôtelu VIP mu ne ma maa ngi nii di gaari si tàmbali léer bi ma ànd man ñuy daw topp xaay wi yokk yi di yëg ci point yi di wàcc di yëg ci point yi di daanu di wàcc ba egg fu ñu naan Queens Queens fa ñu jaay ori seere te New York Dubaï vingt et un carats lañ fay jaay waaye Queens mooy seen ndey vingt deux carats la ñuy jaay waaw foofu Pakistan laa fay jaay mooy bu foor vingt deux carats mooy bu foor foor bi dama ne la kuli aj kuli ajjee ko man 22 carats mooy kuli ajji ah waaw. Malick Naar dem ba naam. jëndal jabaram cinq cent cinquante grammes kilo bu manqué maanaam liibar bu ëpp. xaaju kilo bu teg cinquante mooy liibaru or. kilo or. juum plaqué wala oor or lu mu seere nga am si libre. Malick ana saag ba. maanaam est-ce que Pape juumul jaawale plaqué ak or. or lu mu seere nga seetaan naa vidéo bi. man dama doon nelaw. xam nga Malick. ku mu am téye teral na la. dëgg waaye ku mu àndalit sincérité la ànd ak yow ñu xam ko ñun ki ñu booleek moom waaw moom la ne tànk teewul fekkee du ñu génn teraanga ji kay gor ah. Californie non cinq cent gar cinq cent cinquante multiplié par quatre-vingt-dix-huut ooru cuins bi benn gramme bu ne quatre-vingt-dix-huit dollars la calculer cinq cent cinquante grammes multiplié par quatre-vingt-dix-huit. cinq par quatre-vingt. dix-huit oh, bi. kër kër Malick Naar baa dinañ ma ko filmer lépp. jox ma ko ma dugal ko ci sama TikTok paase la ko nga dugal ko am zoo dugal ko. waaw këram nga. xam nga fu ñu toll jamono jii. waaw preuve. ba guerre jotee guerre nanu. preuve. te ba ñu guerree cott nañu noonu. Pambaay eh, eh, Pambaay eh, may ma deux minutes Pambaay may ma deux minutes ma wax Malick tey ma wax Malick benn benn affaire. barke alxuraanu kër. dama wax maa ngi ah, dégg ah Omzo may ma may ma maa ngi gis am ñuy naan ëpp na cinquante mille dollars. dëgg la nee naa mooy presque trente millions. lu ma. mënul nekk. cinq cent cinquante trois mille euh, neuf cent dollars la. non man dama jàpp rek ëpp na cinquante mille dollars cinquante mille dollars mooy trente millions yi teg na. waaye yow ñii ngay déglu wala man ngay déglu man mi ko. yow laay déglu. yow laay déglu yow laay déglu. yow laay déglu Amzo. man ngay déglu wala may tuuti. yow laay déglu. waaye da nga wax sànq déglu ma. soo soo duggee ci benn sujet. dag ñuy may ñu wax ci sujet boobu balaa sujet boobu di dagg parce que sànq da nga ne. da jël jarul ngay log butéel di jaay doomu xaraam da nga ne sànq. dañ lay yónnee vidéo bi. nga yónnee ma ko. jël ko dugal ko ci TikTok bi dama la ci bëgg a sànnil dara tey international la dama doon wax ak sama fournisseur bi tey. Kalifon mu am na xale bu góor bu fa bu fa bu fa nekk ci Turquie déglul bu baax li ma la wax. Mhm. kooku xamal ma ne ma ñaari fan ci ginnaaw la jokkoog Malick Naar mu xamal ko ne da koo war a dugal conteneur karaw ak ay buntu ak ay saniteer ci immeuble bu muy tawax pour louer ko man maa la wax man. kooku léegi la coupé ak man. maanaam sa wax leerul may ma ma ñëw may ma ma ñëw. Pape Pape yéyal gay di xaar tuuti. Omzo olofam leerul. Omzo maanaam dafa am nit ku nekk Turquie. man maa doon wax ak sama fournisseur déglu ma. waaw man maa doon wax ak sama fournisseur xam nga man ay sanitaire ak ay karo laa jaay. waaw dama koy dugal conteneur di ko yóbbu di ko jaay. dama doon wax ak sama fournisseur bi mu am ku fa nekk sama benn nit. naam boo xam ne dama dama dee daf ma dee dimbale sama liggéey. su ma munta dem daf may dimbale ma wax ak moom mu xamal ma ne ma carrément ne ma. ñuy wax mu ma dégg muy wax kooku mu ne dafay jël ay photo yónnee ko Malick Naar. ma ne ko ban Malick Naar mu ne ma Malick Naar jëkkëru Amina Poté ma ne ko ok mu ne ma de dafa nekk di tabax benn immeuble boo xam ne karo yeeg sanitaire yi gépp maa ko war a lootal si ci conteneur ci turki leer na leer na leer na loolu laa bëggoon nga répété maanaam Malick Naar déglu ma ñëwal. immeuble boobu lu ñuy luye di ko tabax la bokkut ak kër gi Malick Naar sampal boppam ci diggu Ndar dëkkal fa ay doomam yi nga xam ne moo leen jur sëyoon ak seen ndey ba yàlla weddi mu mënoon a ba ndey bàyyi doom yi waaye defu ko ay doomam taxawaaluwunu ay doomam dëkkaanuñu ay doomam fayuñu luyaas ay doomam wuruñu pale boobu ñuy coow di ko tëkkale ak pale kër yaayu Mansour Faye ak pale kër Mansour Faye ñaari pale la benn bi ndayu Malick Naar ca dëkk beneen bi ay doomam la ko tabaxal nu dëkk ci Amina Poté mii léegi ak reer bii ma doon reer ak ndox mii ma naan léegi rek la ma woon vidéo am ne ma mbaaya Malick Ory yi gën tuuti ci li mu def mu ne ma mu ne ma xoolal tabax bii Malick ga ma koy fondamaal dangay wax la wanee kër gi Amina Poté Malick naa di ko tabaxal doo too Kaliphone da ngay bàyyi lépp du dëgg mu ngi nii toog du ma ko tuulal la du sama nawle du ma ko fenal mi ngi nii tëdd na ko wax Amina na ko waxal boppam dama ne duma feral Amina Poté. sama dëgg la Kali. Ah, la Amina du fen. Amina du fen. moo tax ma ne Amina ma waay yow man duma feral Amina Poté dama la ne damaa bëgg mu naw ma gis nga géwél géwél Kali géwél dëgg da am dignité géwél dëgg da am personnalité géwél dëgg da am fulla. am fayda fexe ba géer gi ngay waxal mu respecté la doo ko jay doo ko sosal doo ko fenal doo ko waxal lu dul dëgg ndax soo toogee di ko fenal mbaa nga koy sosal ëllëg ci biir loo ñëw wax danaan dangay duul parce que fii nga toog di ma duulal mu ngi nii toog moo ma wan fondation bi wan ma kër gi wan ma tabax bi ko Malick Naar di tabaxal ma pare ci loolu mu ne ma Malick Naar kër gi jënd ak sama kër Malick moo koy tabaxal boppam hey yow suñu coowee coow li bari suñu coow coow li bari foog nag réew mi coow coow li bari ndax kenn du Malick Naar ci même réew cinq cent cinquante grammes or la sama waa ji jënd multiplié par quatre-vingt-dix-huit cinquante mille neuf cent la cinquante trois mille neuf cent dollars. cinquante trois mille neuf moom la takk nii ci loxoom bi barki démb ba ñee salaamaaleykum mu ànd ak moom Twins commande yëfi naar bi da ko ne lii nga bëgg mu ne ko waaw Amina xool la mi ne ko ndax neex na la mu ne ko waaw. mu takk ko di ko yendoo Malick Konte dix mille dollars ne ko naar bi mi ngi nii bu subaa su ma xëyee dugg ci banque bi génn la sa quarante mille dollars moom laa doon compter tey rama rek la ñuy xaar ma dajji boyeti bul daajeegum bul daajeegum bul rama rek la xaar parce que nag dañu doon laay ba si kanam ma ne Malick Naar mënul defaral teraanga Amina Poté di la defaral teraanga di defaral teraanga yeneen i nit te du defaral teraanga followers yi ma ne bëgg naa mu may ma ñeent fukki junni ma daal di koy partagé followers yi yow nga ne ma Malick Naar nee na ñeent fukki junni tuuti da may na la téeméeri junni nga may ko followers yi téeméeri junni bi egsi na egsi na egsi na bu dàq partagé dàq tapoté nga yéegal ko nga may ko fukki junni noonu laay def damay yéegal